waaw salaamaaleykum Tëngéej eh, salaamaaleykum àdduna sëñ Dame Ibrahima Mbaye Sopé eh, di waxtaan ak yéen ci xew-xew rek yi fi am témb du nag lu rafet ci taaru Tëngéej ndax image yi mi ngi circuler un peu partout dans le monde day dem ba benn moment sax dañuy mujj diaboliser te ku nekk xam ne ni Tëngéej ci teraanga la mës a fanaan Tëngéej ci teraanga la mës a yendu ci teraanga la mës a en fait je perds mes mots parce que je suis plein de mots avec plein d'émotions lay waxee ci li fi xew te mu wóor ma ni mënoon nañ ko éviter ndax ñunu neen la ñoo bokk lépp ñoo bokk kumba làmb ñoo bokk géej gi ñoo bokk tefes gi ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te honoré wuñu ñuy yàq stade bi nga xamante ni sept ans la ñu toog sept ans amuñu ko kon bu stade bi ñëwee ay xol war fa daje war a bég leneen loo xamante sa fan bala waru fa am te il faut ñu comprendre benn affaire te ngéej benn bopp la kenn mënu ko xar lébu bi nekk jokkul wala bi nekk cëwleen wala bi nekk dàngo bi nekk HLM benn lañu ki nekk fii ki nekk fii ki nekk fii boo amul fii jabar am nga fa rakk boo amul fii grand am nga fële càmmiñ kon lépp loo def ci sa bopp lañu mujjee te jàmm nag dafa neex ñi conscientiser ñëpp ñu bàyyi xel ci loolu jàmm jàmm ak salaam lu mu mënul régler leneen mën ko régler